أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ñu ngi ci dars qisasul anbiya ñoo ngi ba tey ci histoire yonent yàlla histoire yonent yàlla yonent yàlla Shuaybu alayhi salaam dars bi passé ñoo ngi woon ci féttirlu ak rëy rëylu gi nga xam ne xeetam moom Shuaybu ci lañu nekkoon waaye xam ngeen ab yonent bu ko yàlla subhanahu wa taala tànnee di ko yónni foog yàlla may ko lu mu ëppe ay ñoñam moom Shuaybu yàlla subhanahu wa taala defal na ko xel waaye ak ak muus dafa am xel ba pare muus bi mu leen woowee gis seen féttirlu ak seen dëgër bopp adraka shuayibun alayhi salaam anna qawmahu yasxaruna minhu wa zalika li annahum kaanu yactaqiduuna anna diin laa daxla lahu bilxayaati alyawmiya shuaybu bi mu seetloo ne mbokkam yi waa réewam ay nitam ñu ngi ko commencé di ko yéjji di ko reetaan di ko moke lu waral loolu mooy ñoom nitam ya dañoo jàpp ne diine daal amul place ci seen dund xam nga loolu tey ci àddina bi ñu baree bari ci ñun dañoo jàpp ne diine amul wàcc waaye ci seen dund waaye dañuy def lu ñu neex rek amul yàlla nee na amul yonent nee na diine amu fi place te xam ngeen ne dund jullit mooy diine moo lay orienté moo lay wax defal lii bàyyil lii jaaral nii waxal lii lekkal lii naanal lii solal lii defal lii ñoom nag liñ jàpp mooy dund sans yàlla comme ni ko communiste yi gëmee diine daal amul place ci seen dund wa anna lahum alxaq an yataamalu bi ay suwari almuharrama fi albayi wa alshiraai wa saairi almuamalat duna an yatadaxal addin fi dalik bokk na ci liñ gëm ñoom seen alal ñoo ko moom lu leen neex ñu def ci nu leen neex ku leen neex ñu jëflante ak moom ci mbooleem façon riba ak lu araam nga loolu tey dafa bëri ci àddina am na ñoo xam ne seen alal dañ naan ñoo ko moom rek lu leen neex def xalaatuñu ñu nga am am am am bu dagan xalaatuñu am am bu araam ñoom daal na ñëw rek na bëri rek na bëri fu mu jógee dagan na daganul seen yoon nekku ci bu la neexee ñu jënd lu araam bu la neexee ñu jaay lu araam diine daal na toog ca jàkka ja xaar leen ba ñu ñëw waaye bu mu wax ci seen dund bu mu wax ci seen kër bu mu wax ci seen alal bu mu wax ci seen nekkin diine daal bu fekkee ne am na lu muy wax na leen xaar jàkka ja loolu moo tax gis nga ñu baree bari tey ci ñun nii nitu Shuaybu yu meloon noonu lañ mel ndax lan dañ naan diine toogal jàkka ja ma jox leen misaal tey bu ñuy ngénte Sénégal bu ilimaan tuddee ba pare dañ naan ilimaan mu ne ah ñu ne ko léegi mën ngaa toog jàkka ja yaag waa jàkka ji bu leen ñëw de dañ leen yónnee sax añ d'accord ngeen wala d'accordu leen su ko defee ñu commencé musique nag jëmale jëmale jëmale minuit ko defee ñu dàq mag ñi ñu ne leen toog leen jàkk ja bu leen ñëw dinañ leen indil añ bu leen ñëw de wax nañ leen ko attention su ngeen fi ñëwee nag fii ak midi deux heures ba cinq heures lu ngeen fi gis yéen a ko def bu leen ñëwaat tudd ngeen ba pare toog leen jàkk ja dinañ leen yónnee añ bu ngeen dajee añ dajee ngeen imam añ bi ñëwoon na mu ne waa añ bi ñëw na kay gis nga jàng mooy diine toog leen jàkk ja leen diine toog leen jàkk ja de wax nañ leen ko mooy nitu Shuayb bi lu ñu wax ñu ne yàlla na leen xaar jàkk ja amma seen alal ak seen kër ak lu ñuy def loolu yoonu diine nekku ci naam lam yaghdab Shuayb alayhi salaam li nafsihi abadan Shuayb bi mu déggee lii waa dëkkam bi di ko wax naan ko diine amul importance ci seen dund yàlla joxuñu ko ci benn place Shuayb bu dafa mer Shuayb bu musul mer ngir mbiru boppam ab yonent bokk na ci jikkoom du mer ngir moom ngir yàlla rek ngir yàlla nit day mer ngir yàlla bul mer ngir sa bopp bal talattafat maahum wa tajaawaza suxriyatahum walam yuaatibhum wantalaqa fi daawatihi ila alxaq wa ila tariqin falaahi wannajaahi Shuaybu bi mu déggee loolu découragé wul dafa continuer di leen woo di leen waar di leen jàngal di leen jubanti mu continuer ci woote gi mu doon woote ci dëgg ci yoonu dëgg ci texe ak ci mucc wa waddaha lahum annahu ala bayinatin min rabbihi mu leeralal leen ne leen lii ma leen di wax du samay xalaat waaye ay mbir la yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ma ko jox pour ma leeralal leen ko waaye waxuma leen samay xalaat gis nga mu leeralal leen loolu ne leen yoon wi ma leen di woo yoonu dëgg la yoonu yàlla la waaye waxuma leen samay mbiru bopp waxuma leen sama baab sama papa nee na waxuma leen sama yaay nee na waxuma leen saa maam nee bal li ma leen wax mooy yàlla nee tey da ngay gis ci jamono ku toog war a wax yàlla nee na naan saa maam nee na wa annahu yaarifu tariqa alxaq ndax moom dafa xam yoonu dëgg wal xayr ak yoonu yiw wa yadcuuhum ilayhi wa huwa fi nafsi alwaqt laa yaamuruhum bi amrin wa huwa laa yafcaluhu wa laa yanhaahum an shayin li yuxaqiqa li nafsihi nafan waraa dalika tomb bu ama importance a ngi nii ci képp kuy woote ci yoonu yàlla Shuaybu dafay woote ci yoonu yàlla waaye wootewul ngir jëme ci boppam wonul nit ñi boppam mais kan la leen won yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li tax nit wooteem di mucc mooy ñi ngay woo won leen yàlla saa yoo woowee nit ñi ba ñëw wonee leen yàlla nga won leen sa bopp rek bokkaale day am parce que nit ñi tolloowuñu niveau léegi ñu jël la ëppal la yóbbu la ba foo xam ne yow xam nga ne yeggoo fa lu tax parce que yow yaa ko def yow yaa leen won sa bopp te kan nga leen waroon won yàlla subhanahu wa taala Shuaybu mu won nit ñi yàlla waaye wonu leen boppam waaye daawul digal nit ñi mbir moo xam ne moom du ko def bal lu muy digle moo ciy jiitu lépp lu muy digle moo ciy jiitu daawul digal nit ñi loo xam ne nit ñi du moom du ko def waaw waaye yéen kay mun ngeen def lu baax rek mun ngeen a saraxe moom du saraxe mën ngeen a julli moom du julli mën ngeen a jaamu yàlla moom du jaamu yàlla déedéet bal lim leen di wax moom ci boppam loolu la doon def waaye santu leen loo xam ne njëriñam mi ngi ci santu leen loo xam ne moom njëriñam mi ngi ci lu mu leen wax yépp seen lan la seen njëriñ ñoom kaana alayhi salaam qudwatun xasana moom royukaay bu rafet la woon moom Shuaybu fii sumi wi xulqihi ci jikkoom ni mu kawe woon jikko ju rafet la amoon moom Shuaybu waaye war a jaaxati aqlihi waaye xelam dafa yaatu woon moom Shuaybu dafa amoon xel mu yaatu wa iffati nafsihi mais ku fegu woon la ku fegu daawul caaxaan daawul dugg ci ay mbóosóor daawul dugg ci ay ay giraawaali waaye wa uluwul himma ku kawe woon yitte la ay jubluwaayam objectif am dafa kawe woon fi mu bëggoon yegg mooy dëkk bi yépp na ñu ñëpp tuub na ñëpp dem ci yàlla mais histoire am wa safaa is sariratihi ay biiram biiram dafa set dafa set wicc wicc biiram dafa set moom Shuaybu amul lum daan nëbb di génne leneen di wan nit ñi ci biti lu baax fekk ci biir dafa bon moom Shuaybu melul woon noonu fa baada an daa qawmahu ila wahdaniyatillahi ginnaaw ba mu woowee nit ñi ñu kennal yàlla mu woo leen idal adli ci maandute wal musaawama ak égalité war rahmati ak yërmande qaala bi kulli sidqin wa siqatin ya qawmi araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu risqan hasanan وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعيب عليه السلام mbokki woote na ci maandute woote na ci tolloo égalité na ñëpp tolloo woote na ci yërmande na ñépp am yërmande seen biir ku nekk na yërëm moroomam qaala bi kulli sidqin wa thiqatin wax na ci bépp dëggu ak confiance mu ne yéen samay nit maa ngi leen di wax ne su fekkee dama nekk ci mbir mu leer mu bàyyeekoo ci sama boroom sama boroom wërsëgal ma ko mu bàyyeekoo ci moom man de lii ma leen di woon nam mu ma wuuti ak yéen man leen bàyyi leen ba pare ngeen bàyyi man ma koy def wa ma uridu an uxaalifakum bëgguma wuuti ak yéen lii ma leen di sant daal dama bëgg man mi ma jiitu ci lii ma leen di tere dama bëgg ma jiitu ci maa ngi leen di yëgal nag in uridu illa al islah yéwénal rek laa bëgg yéwénal in uridu illa al islah baaxal rek li may wax ni yépp baax moo ci jublu baax dama bëgg ngeen baax mastataatu nag sama kemtalaayal kàttan ngeen baax moo ma tax a jóg pour ngeen baax nag nekkul sama wax moo leen di baaxal de loolu tamit tomb bu jaraj bàyyi xel la mën nga wax guddeeg bëccëg waaye nit ñi duñu baax ndax mbaax ci loxo yàlla la nekk ku mu neex nga baax kum ko neexul nga nekk ci safaan moo tax mu ne in uridu illa al islaaha waaye wa ma tawfiqi illa billah man de li ma bëgg mooy mu baax waaye nag pour mu baax foog yàlla subhanahu wa taala moo ciy jàpp moo tax yàlla nañu yàlla jàppale pour ñu baax gis ngeen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bëggoon na bàyyi taxam abu taalib baax dugg aljanna waaye nammul yàlla nammul loolu yàlla nammul moom mu baax pour mu dugg aljanna yàlla nammul loolu bi muy sukuraat moom abu taalib yonent bi taxaw na ci wetam naan ko waxal laa ilaha illallah munu ko wax waxal laa ilaha illallah munu ko wax waxal laa ilaha illallah mu ne maa ngi dee ci samay diine maam noonu la dee dem safara mbokk yi danan yàlla jubal kaana lisaanu xaalihi yaqul moom soaybu xelam ak làmmiñam ak léppam da daan wax yaa qawmi antum taarifuna ni yéen samay nit xam ngeen ma de yéen ñi xam ngeen ma xaqal maarifa dëgg dëgg ngeen ma xam laqad wulittu xam ngeen ne fii laa juddoo ci seen biir wa tara'ra'tu baynakum ma màgge ci seen biir ci seen diggante wa antum ahla qaryati yéen sama yéenay sama waa dëkk xam ngeen samay njaboot xam ngeen sama famille xam ngeen samay baay xam ngeen samay maam wa aqraba'i wa jiraani yéenay ñi ma jege yéenay samay dëkkandoo wa ta'lamuna bi annani lam akun fi yawmin min al ayaami mufsidan fil ard xam ngeen ne man musuma nekk criminel musuma nekk yàqkat musuma nekk agresseur musuma nekk fecckat musuma nekk simbkat musuma nekk gaynde musuma nekk rappeur musuma nekk musicien musuma nekk footballeur musuma nekk mbër xam ngeen ma fii laa juddoo est-ce que mus naa fee organiser combat wala choléra wala fuural gaa yi na tekk mu ne musuma nekk agresseur wala saddan fi sabilillahi musuma nekk agresseur wa laqad razaqani allahu yàlla moo ma wërsëgal minhu risqan xasanan lii may woote yonent gii ma takk grade bi yàlla moo ma ko wërsëgal yàlla moo ma tànn def ma yonent kon loolu yéen sant leen ci yàlla ndax yéenay samay mbokk kii nu mu tudd Aboubacar Aboubacar tey bu ñu ko defoon président de la république Sénégal ñan ñooy ciy njëkk a kontaan ay mbokkam yaayam ak papaam kon nit bu nekkee yonant tey bu nekkoon yonant ñan ñoo war a njëkk a kontaan ay mbokkam ay mbokkam kon soxay bu nee na leen man su ma nekkee yonant yéen samay mbokk da ngeen cee war a kontaan ndax yàlla moo ma tànn def ma yonent yàlla moo ma ko wërsëgal kon lu tax ngeen ciy mer waaye xam ngeen lu tax nit ñi bu la yàlla defee yonent nit ñi di la mere ku xam lu tax déedéet ku xam lu tax bu nit nekkee yonent ñeneen ñi mer bu nit di wax lu baax ñeneen ñi di mer ku xam lu tax parce que nit ku xam lu tax ah hmm ah déedéet ku xam lu tax déedéet aha déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet nit ñëpp dañoo bëgg nga noppi ndax ñëpp bon ñu ne la ñëpp a bon dëkk bi de ñëpp la lii de ñëpp a koy def ah ñëpp la di moo tax ñu ne yow dañ lay mere booy wax lu baax yow kenn yaay nekk cundum fële da ngay weex taal taxaw fële nit ñi taxaw nii ñuul kukk ñu ne la yow noppil dëkk bi yëpp nii lañ mel sooy ba nga noppi lii mënoo ko fee jële see ngaa noppi rek du lii nga fekk nit ñi di ko def defal loolu est-ce que loolu mooy islaam déedéet loolu moo tax yonent yi am problème yonent yi dañu ñëw fekk nit ñi nekk ci lu bon wala Suaybu Suaybu lan la fekk nit ñi di def yu bon jàngoon nañ ko lan la Suaybu fekk nit ñi di def ci lu bon ñenn ñi ay agresseur lañu woon ñenn ñi dañuy jaay di wàññi très bien très bien ñenn ñi dañuy jaay di wàññi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ci lu bon lañ nekk mu ñëw taxaw ne leen bàyyi leen loolu ah jaamu leen yàlla xam ngeen ne man yonent gi may woote defuma sama bopp yonent yàlla moom moo ko wërsëgal wa amali tarjamatun aminatun li aqwali mu ne lii may wax sama wax ji may wax ngeen koy dégg xool leen man man man nii di wax ak yéen noonu laa mel wala melu ma noonu ndax dama leen di wax bàyyi leen bëre ma dem organiser ci combat wala dama leen di tere sabar ma dem di organiser di organiser ko wala dama leen tegale fecc ma dem wut samay samay ndënd est-ce que man mos naa leen wax loolu soay ba mu leen di wax loolu nan leen man est-ce que mos naa leen tere lu bon ba pare ma dem di ngeen gis ma ci moo tax sooy wax nit ñi lu baax yow da ngaa war a baax waroon nit ñi nit ñi wax nit ñi sangu leen sangu leen sangu leen te yow doo sangu yow yaa ci war a jiitu ataamuruna nnaasa ataamuruna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitab يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كو يغالي كو يغالي كو يغالي بسم الله كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل ما لا تفعلون اسلم yeen ñi gëm yàlla lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def lima taquluuna ma la tafaluun xanaa xamu leen ne bàkkaar bu rëy la ci yàlla ngay wax loo dul def kon Suaybu loolu la leen doon jàngal ne leen xool leen li may wax rek bu fekkee samay wax ak sama jëf dafa wuute bu leen ma déglu ah waaye de nit ñi gis ngeen leen wa laysa fi xulqi idtiraab wala tanaqud aw inqis infisaam sama jikko sama melokaan est-ce que dafa am contrainte est-ce que man sama jikko da ngeen cee gis lu ñaaw loo xam ne su ma waxee ngeen bañ maa déglu ah est-ce que da ngeen a gis ci samay wax loo xam ne jaaduwul ba bu leen maa déglu sama melokaan da ngeen cee gis lu leen neexul ba ngeen bañ maa déglu Hmm. mbokk yi fa ana awwalul mutamassikina bi kulli ma amurukum bihi mu ne leen man maay premier ku jàpp ci li ma leen di wax maanaam lii ma leen di wax maa leen ci jiitu walam akun li anhaakum an amrin wa artakibuhu duma leen di wax benn mbir ba pare teere leen ko bara suba ma jiitu leen ci déedéet déedéet in uridu illa al islaha mastataatu li ma bëgg rek mooy ñépp nañ nekk ci jàmm innani la abghi min warai hadhihi daawa maalan wala jaahan gis ngeen aw maxnaman beneen importance beneen tomb bu am solo ngi nii mooy boo nekkee wootekat fexeel ba sa woote bul ci bëgg alal fexeel sa woote bul ci bëgg daraja fexeel sa woote bul ci bëgg koom koom koom tey bokk na ci li yàq sunu daawa mooy ñenn ñi ci ñun daraja lañ ci bëgg daraja boo ñëwee ñu ne ustaas diw ñëw na buñ ko waxul ci rajo bi sax nga ne nga bind sa tur ci benn feuille jottalil waa ji na ko wala ñu ne sëriñ bi ñëw na ñëpp toog ci suuf ñu indi benn photo yow kese nga ni nong ci kaw ñu lay séen loolu mooy bëgg daraja est-ce que yonent bi noonu la meloon yonent bi saa salaam bu ne woon tëll ci jàkk ji mu fekk ñëpp toog fële lay toog du jéggi nit ñi mu ñëw ne maay toog ci kanam day dugg rek toog su ko defee ñëpp daal di tourner ñu nekkoon daara daal di nekkaat pied ñu doon xaar fii mu ñëw daal di perte yonent bi noonu la doon def musul ñëw di jéggi sàppe yi di xuus di dëgg mbaggu nit ñi wala ñu teg ko ci benn chaise bu kayo mu toog gaa yi wër ko mu naan nii di xool ndeyjoor ak càmm nii di xool nii noppi du wax na nii bu gaa yi di nuyu ñu mu ne nii benn loxo rek lay def nii gaa yi di ñoom ñu ñu su yonte musul def loolu xoolal yonte bi saa salaam da daan dem marché allahu akbar di nduggi di fóot ay yéreem bal di raxas ay dàllam bal di bale benn bis sax gis na jaam bi di dëbb mu ñëw nangu kuur gi daal di soq ba loxo bi fut sallallahu alayhi wa sallam bal yonent bi sax sangandoona ak soxnaam sangoondoo ak soxnaam sangoondoo ci duus ah muy sangoondoo ak soxnaam loolu moo lay wane yonent bi rëyul woon dafa suufe woon dafa wàcce woon boppam ñun tey ñi nga xam ne nee nañ dañoo wuutu yonent bi ñoo fi gën a rëy léeg-léeg nga dégg ñu ne diw du war mbaam du war mbaam yonent bi da doon war mbaam te moo fi gën diw de du war mbaam balaa saa mu war naas yonent bi war na mbaam est-ce que war mbaam dafay fekk ne da ngaa bon ki gën ci nit ñi moo war mbaam te jamono bi muy war mbaam bu ko neexoon du ko war est-ce que jamono yooyu amul woon ay gëléem amoon na wala amul amul woon ay fas amoon na wala amul waaye mu bàyyi fi ñaari yëpp di war mbaam loolu moo ne dafa tu dafa suufeel boppam sallallahu alayhi wa sallam moo tax kuy woote ci diine da ngay suufe beneen mooy li ngay woote buur ci ut alal yonente bi muy faatu juróom benni dërëm la bàyyi mu mu mu mu nekk ci sukuraat xëm mu ximili ko mu ne Aïcha mu ne ah mu ne lu nekk ci kër gi mu ne juróom benni dërëm mu ne saraxe ko saraxe ko Aïcha daan ne ko waaw mu xamaat xëmmili ko mu ne ko saraxi ngeen ko mu ne ko ah suñ ko saraxee kër gi du ñu am lu ñu lekk mu ne ko yéen ay musiba yéen musiba ngeen yéen jigéen ñi saraxe ko da nga bëgg ma dem ci yàlla yàlla mu ne am na laa am naa lu ma fi bàyyi ñu daal di koy sarax kon kuy woote ci yoonu yàlla li ngay woote wooteel ngir yàlla waaye bul ci ut alal ci woote bi pour ñu lay fay pour ñu lay pour ñu lay pour ñu lay pour ñu lay wooteel ngir yàlla beneen bi mooy wala mag na man bul ci ut koom bul ci ut marchandise tey bokk na ci suñu woote xam ngeen ni di ko yàq li tax nit ñi mënuñoo bennoo li tax nit ñi mënuñu mbooloo yi mënuñoo nekk benn mooy ay intérêt dafa làqatu ci ginnaaw koo ne bàyyi sa intérêt yi nga ñëw ci laa ilaha illa muhammad rasulullah mu lànk loolu rek moo tax mënuñu ne loolu kese la loolu kese la wala jullit yi mënuñoo ànd parce que ay intérêt moo ci laxasu ay intérêt affaires yi ay marchandise la marchandise bénéfice gars yi dañuy indi rek ñu dugal ci ginnaaw ay milliards la ñuy indi ay milliards gars yi di jël rek te kenn du liggéeyal diine nag doo dégg ku tabax école doo gis ku tabax jàkk doo gis kuy kuy kuy kuy kuy dimbali ay taalibe doo gis kuy financé hôpital doo gis dara lekk rek takk jabar jënd limousine 4x4 kese tabax ay étage ci buntu géej château te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu fi woon loolu nit yi diine yu mag yëpp imaam Malik dund na ba dee amul kër acca dañ leen bàyyi xel sunu bopp day ngeen mbokk yi acca wa kullu lazi uriduhu islaaha umura diinikum wa dunya li ma bëgg yëpp soo ay bi mooy wax de mu ne li ma bëgg yëpp mooy defar seen mbiru diine ak seen mbiru àdduna diine su abaaxee rek àdduna day baax waaye bu diine bonee àddina day bon bu ñu yàqee diine ji comme tey ni ñu yàqee diine sunu jamono moo tax àdduna bi mun ta baax gis ngeen tey jii sax tey jii rek fii ñu toog lan moo xew ci dëkk bi grève gis ngeen fan yi nit ñi ni ñu tiite ku nekk ngi ñaan mbooloo yu nekk juddu na jàmm association jàmm daayira jàmm samba jàmm nangam nangam lu tax parce que nit ñëpp a tiit Sénégal tey ñëpp a tiit ay fan a ngi ñëw suñu kanam nit ñi yaakaar nañ ne deret day tuuru lu ko waral mooy diine moo amul ci dëkk bi diine bu dëkk bi amoon diine kon kenn du tiit waaye diine lañ ñàkk diine nag bu yàqoo àdduna day yàqu ndax diine mooy defar àdduna diine mooy defar àdduna hmm? bu àdduna yàqoo bu diine yàqoo àdduna day yàqu hmm? aywa kon mbokk yi mu ne leen wa ana a'lamu jayidan bi anna tawfiq wal falaahi min allahi wahdahu waaye bokk na ci lim leen jàngal mu ne leen xam naa bu baax a baax a baax maa ngi wax ak yéen waaye pour ngeen dégg fan lay jóge maa ngi wax ak yéen pour ngeen dégg fan lay jóge déedéet maa ngi wax ak yéen pour ngeen dégg fan lay jóge maa ngi wax ak yéen pour ngeen dégg li may wax ngeen jëfe ko fan lay jóge maa ngi wax ak yéen pour ngeen dégg jëfe fan lay bàyyee ko ci yàlla mu naan ci nopp ci nopp ban ci yàlla pour ngeen dégg jëfe fan lay bàyyee ko ci yàlla da ngay dégg soo déggee yàlla moo lay dimbali pour li nga dégg nga jëfe ko kon yal na ni yàlla dimbali ba nu dégg lépp lu ñuy wax bu ñu ko déggee yal na ni yàlla dimbali ba ñu mën koo jëfe mbokk yi walihada faqad tawakkaltu alayhi fi jami umri comme yàlla moo ñuy dimbali ba ñu mën a jëfe kon ñun ñëpp nañu jël sunu mbir ñu dénk ko ñun ñëpp nañu jël sunu mbir ñu dénk ko yàlla moomu nga xam ne moo ñuy dimbali ba ñu mën a jëfe kon nañ ko dénk sunu mbir mbokk yi wa ilayhi wahdahu arji'u fi kulli ma nabni wa ana la arji'u minkum ajaran wala axaafu minkum darran Shuayb ne leen comme yàlla moo nuy dimbali yàlla moo nuy jàppale yàlla moo nekk biir biti yàlla moo nekk fépp kon yàlla moomu subhanahu wa taala maa ngi koy jox sama mbir yépp man mii di wax ak yéen man Shuayb lii may wax ak yéen bëgguma ci yéen ngeen jox ma dërëm ragaluma ci yéen it pour ngeen defal ma nangam ba ma bañ a wax ak yéen mbokk yi soay bu lan la wax nee na lii may wax ak yéen bëgguma ngeen jox ma ci ah xaalis bëgguma ngeen fay ma lan laa bëgg mooy ngeen dégg ko bu ngeen ko déggee ngeen jëfe ko bu ngeen ko jëfee bu ngeen deewee bu ngeen deewee yàlla dugal leen aljanna moom Shuayb bu mu ne leen wa li annahu alayhi salaam kaana qudwa comme royukaay la woon royukaay bu rafet ba mu commencé wax li lenn ci biir dëkk bi ñu dégg waxu Suaybu ah ñu ne xale bi daal dëgg-dëgg li muy wax dëgg la ndax xale bi sunu kanam la juddoo fii la màggee fii la yoroo mosuñu koo gis ci lu bon kon bu ñu nee yonant la di ñu waar dëgg la yàllaa ko yónni ñoom ñu daal di koy gëm kuréel googu daal di xaaju daal di koy gëm dëkk ba daal di xaaju ñaari xaaj am ñu gëm Suaybu am ñu ko wedd waaye lan moo tax Suaybu ñooñu gëm ko hirsuhu ala hidayatihi dafa xër di wax guddeeg bëccëg pour nit ñi gëm wa zaala Shuaybu alayhi salaam yujahidu maahum mu commencé di jihaad ak ñoom di góorgóorlu ci ñoom wa yubzilu kullu taqatihi min ajli an yaxuza bi aydihim ila shatii najaati moom Shuaybu dafa def bépp effort bépp coono pour jàpp ci loxo nit ñi jële leen ci biir géej gi indi leen ci tefesu tefesu mucc loolu moo tax gis ngeen tey dëkk bi ni mu mel mooy ñiy woote li li li li cheikh bi doon wax démb tey bu ñu demoon ci àll bi ñu fekk foofu ay jàkk yoo xam ne kenn du fa julli mosoon nañoo dem ci benn jàkk boo xam ne ginaar moo fa bóof ay nenam ba toj ko ci biir jàkk ji uuf cuuj yi mosoon nañ dem ci benn jàkk joo xam ne benn nag moo réer dugg ci jàkk ji ñu koy wër ndekee nag maa ngi ci biir jàkk ji mosoon nañoo dem jàkk joo xam ne waa dëkk bi yëpp chrétiens yi ñoo ñëw def leen ay chrétien ñu def jàkk ji dencukaayu mbaam xuux loolu kenn du ko reetaan loolu dañoo war a jooy loolu bu ñu amoon imaan ñun ñëpp dañuy jooy la ilaha illa allah ci Casamance jàkka ji lañ denc ay mbaam xuux loolu moo tax moo wax leen ne nit ñi defuñu effort pour nit ñi rëcc maa nit nit ñi boroom xam-xam yi dañoo war a def effort ci àll bi pour nit ñi tuub def effort ci biir dëkk bi pour nit ñi tuub mais fii boroom xam-xam yi lu ñu def boroom xam-xam yi daal boo déggee ñuy wax intérêt rek intérêt rek loolu la yàlla nattoo Sénégal seeni boroom xam-xam du ñu wax mu ngir yàlla dañuy wax ngir seen poos du ñu wax ngir diine du ñu dundal diine mais dañuy dundee diine diine dafa am ñu koy dundal am ñu koy dundee wala Suaybu dafa def bépp effort bépp coono pour ay mbokkam bu ñu dem safara lu ne la daj bépp effort def na ko pour ñu mucc pour ñu génn ci géeju lëndëm ñëw ci tefesu leer walakinnahum kaanu fi amayatin an ru'yati alhaq alladi kaana awdahu min alsams fi wasati nahar wallahi yu soaybu def na bépp coono waaye ñoom nitam nitam yo ñu ngi woon ci lëndëm ñu ngi woon ci réer ñu ngi woon ci ngumba gu gën a xóot géej ci jamono joo xam ne li muy wax ak ñoom dafa leer mel ne jantu bëccëg wallahi jamono bi muy wax ak ñoom mbir yaa ngi leer ba mel ne jant bëccëg xoolal tey rek mbir yi ni mu leeree ni diine bi leeree information yi téere yi ni ñu bëree xam-xam ni mu bëree mais ba tey Sénégal ñu ngi ci ngumba ñu ngi ci lëndëm ak mbir yi ni mu bëree ni mu leeree rek ñaari julli ñetti julli ñetti koor ñetti nangam ñii lii ñii laa te mbir yi xoolal ni mu leeree rek mais ba tey nit ñi lànk rek ba tey rek nit ñi ne ñoom dugguñu aljanna safara lañ dem waaw la ilaha illa allah fa ha huwa yastajisu mashaa'irahum marratan ukhra bi qawlihi ya qawm liya'lamu annahu fi ghayati alhirsi ala hidayatihim wa sa'adatihim fi dunya wal akhirah mbokk yi mi ngi nii moom découragé wul de ci nit ñi li ñu lànk bañ a jaamu yàlla découragé wul benn yoon mais dafa gën a takkuwaat jël kaalaam takku ci ndiggam duggaat ci biir kër yi duggaat ci mbedd yi bal sax dafa changé léegi système bi muy woowee nit ñi léegi suy wax danaan ô mon peuple mooy yaa xaw mi et yéen samay nit kon léegi moom xoolal boole na leen ci boppam yaa qawmi ee yéen samay nit pour ñu dégg lan la bëgg a wax ak ñoom pour ñu xam ne kii kat bañu leen moom dafay wax en tant que ku bokk ci dëkk bi en tant que ku bokk ci famille bi en tant que ku bokk ci mbooloo mi wa qala taala musawiran hada almashhad anna shuayiban alayhi salam qala lahum ويا قوم لا يجرمنكم شقا- شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد bokk na ci lim leen wax mu ne yéen samay nit yàgg gi ma yàgg wax ak yéen bu mu leen yen bu mu leen dugal ci ngeen may noonu yàgg bi ma leen yàgg wax yàlla nee na yàlla kese kese kese boolewuma ci dara bu mu tax ngeen mere ma da ngeen fàttaliku yéen samay nit lan moo daloon nitu nuux yi nitu nuux ñu ngi nii yéen nag jàng leen leen yéen nag jàng ngeen histoire bi na ngeen jàng lan moo daloon nitu nuux yi soay bi mooy wax ak ñoom de su nitu nuux yi passé ngeen jàng lan moo dal nitu huud yi su ngeen jàngee loolu bu paasee ngeen xool lan moo dal nitu saalex su loolu paasee ngeen xool lan moo dal nitu luut ñooñu sax sori wuñ de démb dong la mu ngi nii su ngeen rombee ngeen gis kër yaa ngi nii mab nit ña dee nañ wa maa qawmu luutin minkum bi baid nitu luux ñi moom histoire bi yàggul sax démb dong la yéen a ngi koy dégg allahu akbar gis ngeen Shuaybu da leen doon fàttali démb ñi bañoon jaamu yàlla lan moo dal seen kaw ñan la leen njëkk a wax ñan la leen njëkk a wax nitu nuux ñan la ci teg nitu xuut ñan la ci teg nitu saalix ñu ne leen saalix sax nag moom mbir yi yàggul mi ngi nii ngeen di séen kon fàttaliku leen loolu ngeen jaamu yàlla balaa musiba di wàcc seen kaw comme ni mu wàcce woon ci ñee ndeysaan innama xalaku bayna aydikum bil ams nitu soi nitu huud yi nitu sa saalex yi góor jigéen ñi nitu luut yi démb dong la démb bil ams démb dong la démb yéen ngeen lànk tey bañ a toog ne du ngeen jaamu yàlla mbokk yi fii Shuaybu di wax ak ay nitam di leen fàttali nitu huud nitu nuux nitu xuut nitu saalex ak nitu luut naan leen mbugal mi démb soriwul démb dong la foofu la ñuy tàggatoo ak yéen ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun tawfiq ba àllarba bii di ñëw asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
Bal, bal.